Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan TV, les dans les besoins de la population sénégalaise. خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول لحاس عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول لحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول سبقت غيري إلى الجنان مع النبي فرس الأدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابنا الرحمن قبل الخلق سبعين gannaaw buñ ñu la nuyoo ci turu njaboot gi sa njabootu bopp te président ma Mangara jiite ko mu ànd ak soxna Seyna bu mbakee moom sëriñ Abdou Fatah moom sëriñ Caa Gaynde Fatma sa mag sa xarit yàlla dogal ñu dugg Mbàkke Kajoor di war a wër ndax mbokk gi yaatu na te bëgguñu kenn dégg te agguñ ca ñoom waaye ñu ne nañ jaar ci sëñ Cheikh Bara Lat nuyoo ak moom saafonte moom ñaana la ci biir bis bii nga xam ne yoonu murid amuñu lu dul bis bii rawatina jabootu sëñ Baara ak Cheikh Moussa buñ ne yoonu murit mooy dañoo waxoon ne gan gi ba mu ñëwee li mag ñi doon wut sëñ Touba foofu lañ ko amee bis booba lañuy ñuy màggal nii tey kon bu yàlla dogalee ñu ñëw ci yow nuyu la siyaara la ab malaat nag bu demee ci docteur day wax jàngoroom sëñ Jax Baara président Birima nee na mi ngi lay siyaar ci li nu bokk mi ngi lay ñaanal nga yàgg ko taxawe lool ci barkeb Serigne Touba organisation bii nga nekk taxaw ci taxawaay bu wér waaye taxaw ko yoonu murit ba tey tarixa boo dem xam nañ kat mooy Cheikh Bara Laat te sa wajur wu baax wa di sëñ di Sidi Muxtaar moo la ko defalooloon am na fu ànd dem am na foo ñëw fekk ma fa ci yeneen kër yi lépp nga di ko def ngir rafetal ndax sëñ Sidi Motaar moo ne bëgguma ko mu déggati ku naan tijaan ba war a murit ba mu yabal la ci loolee ku ñëw gàmmu Tiwaawan fekk la fa ku dem ñaseen fekk la fa ku dem Léona fekk la fa loola nag tey bis bii bu amee te yoonu murit lu am am amee ko ci bis bii kon danañ la ñaanal taxawaay bi yàlla na yàgg lii ñuy ñëw fekk fi nit ñi itam ñun jaaxalunu nit ñi ku leen jëriñ ñu bala fi nit ñi ku leen jëriñ ñu bala fi ab sëriñ day am njariñ ci saayir ak ci batin yàlla dimbale na nga boole saayir ak baatin noo dëkk maa yoo xam naa la kon bu yàlla dogalee président Birima Mangara mii bokk ci candidat présidentiel yi dem 2024 te wax ñu wax ñu wax ne mag ñaandoon ak sëñ Touba ci bis bi la ñu amee woon lañ bëgg moom mii nag daa ñëw ci bis bii nag di wut lam bëgg te bu ngeen ko ko ñaanal suñ borom mën na koo def kat kenn néewut diw mooy président yàlla képp a xam te yàlla it nag am dana déglu ñëpp waaye du jégg ñëpp yàlla dana déglu ñëpp waaye du dégg ñëpp ñun ñëpp ñu ngi naan yow yàlla may nu nangam am na koo xam ne daan yàlla defal ma nangam loolu sañ-sañ la comme nag amuñu ko am na nañu bëgg te amuñu sañ-sañ ba danañ ñëw ci yéen na ne yow mii di sëñ Cheikh Baara dégg naa sa mag ju baax ji sëñ Baara nga xam ne mooy xalifab sëñ Abdou Lahad Baara seere ci yow kàddu yoo xam ne dooyu na sëkk seere sëñ mu Moustapha mii seere ñuy dégg waaye nag sa wajuroo toog nañ nga toog ma toog mu wax ci yow may dégg mu sëñ si di mu taar kon nag man du ma kuy lamb ci sa wax yow maa ngi nuyu mbooloo mi fi daje yëpp di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér di nuyu sama mbokk ñuy dend ak man di Birima Mangara. nee wante di nuyu soxna Seynabou mii moo àndal. nee di nuyu it soxna Seynabou mii moo àndal. di sama doom. nee di doomam. ndax baayam day wax dëgg yàlla. nee baayam day wax dëgg yàlla. bëggoon na ma lool. bëggoon na ma lool. di sëñ Mbacke Soxna moom. muy sax sax Mbacke sëñ Mbacke Soxna lool. demoon na ba àgg man ci ni ma. demoon na ba àgg man ci ni ma. bu ma mënoon a jóg fii ma toog. su ma mënoon jóg fii ma toog. wuti leneen. wuti leneen. li ma am lépp ma bàyyi koog yow. li ma yor lépp ma bàyyi koog yow. dinaa ko def dinaa ko def. loolu mooy sama yéene. nee sëñ Mbacké ne loolu mooy yéeneem ci Cheikh Bara. yooyu kaddu mësu su ko dégg fenn. nee yooyu kaddu kenn mësu ko dégg fenn. kon sa waajur wa. nee kon sa waajur wa. man mënu ma koo fay. ah Cheikh Bara ne mënu ko fay. fu ma gisee lu bokk ci moom. nee fu ma gisee lu bokk ci moom. mën naa wax duma ci am ak sama sax ne man naa wax ni ke dootu ànd ak sagoom. ndax ndax ndax ndax damay faral di wax ni nee dafay faral di wax ni sëñ Mbàkke na loo gën la sëñ Mbàkke na loo gën la bu mu tax nga xeeb sag mbaax bu mu teex bu mu tax nga xeeb nag sag mbaax rakkam ji sëñ Abdul Fatah nee rakkam ju baax ji Cheikh Abdul Fatah di sa wayjur di sa wayjur yow mi toog ñaari cër laa amoon ci moom Cheikh Bara nee ñaari cër laa amoon ci moom bëgg gi ma sëñ Mbàkke bëgg nee bëgg gi ma sëñ Mbàkke bëggal taxawoon na mu bëgg ne taxal na mu bëgg ma ndax daa gëm kilifteef ndax dafa gëm kilifteef ba lu kilifaam bëgg mu bëgg ba lu kilifaam bëgg nag mu bëgg bokkut ak bëggu boppam ci ne bokkul nag ak bëggu boppam ci man loolu lépp di sens mais loolu lépp di sens waaye nu ñu ma bëggee waaye ni mu ma nag nu ñu ma bëggee nu ñu ma bëggee nu ko raw laa leen bëgg ko raw rek laa leen bëggee ko seenu njaboot bëggee ko yi ak seenu njaboot ba tey ba tey ji bu ma doon dox ci mbedd nee su ma doon dox ci mbedd ba dégg ñu tudd ba dégguñu tudd lu bokk ci ñoom lu bokk ci ñoom laa sama tànk ba ca des fekk sama laa sama tànk bi jóg fekk ba ca des mais sama tànk bi jóg di fekk danaa xam lu kooka di wax ci ñoom mais dinaa xam nag ñooñu ñu tudd lu ñu leen di tudde soo ko jàll soo ko jàll kon birima kon nee birima bala maa wax dara bala maa wax dara dama lay jëkk a sama doom ci nee lay jëkk a nag doomam ji ndax yow xam naa la yow nee xam na la de xam naa la ci terrain bi xam naa la ci terrain bi waaye nag xam naa la ci bokk waaye nag xam naa la ci ak bokk na ndax mbokk mu jege ndax nag mbokk mu jigéen nga nag te jikko ji ñu xam ci yow nee jikko bi nga xam bi ñu xam ci yow wóor na da nga am a ànd na xam nañ di nga mën a ànd ak soxna a ànd ndax fulla ak ndax fulla ak jom ak moom sa bopp ak moom sa bopp lañ xam ci yow moom la ñu xam ci yow moom li mu doon jigéen loolu lañ xam ci ne moom mii li ñuy doon doon jigéen Mbacke Balla loolu rek ñu xam ci moom yàlla na leen moom nag ne yàlla dajale na leen te nuróole seen jikko nuróole seen jikko kon day ñaan yàlla ngeen yàgg nee ñu ngi ñaan yàlla maa nga yàlla yàggal la ak moom te defal leen ay xéwal itam te ne yàlla defal leen xéwal yu bari defal leen mucc defal leen mucc musal leen ci noon yi musal leen it ci noon yi musal leen ci lépp lu lu bon lu jëm si musal leen ci lépp lu bon lu jëm si ci yéen te defal leen lu ngeen bëgg tamit rabbikum saari'u mustaslimina ma'an liqafi man zuhzihat an hizbi zalamu allahu baaqin